ndaje bi wax nañ si suñu doléance handicapé yu bëri yu nekk Mbàkke wax nañ seen doléance lu si mel ne insertion bëgg nañ insertion parce que handicapé yu bëri yu nekk si ñun ñu bëri jàng nan am na ñoo xamante ni am nañ BFM am ñoo xam ni am na bac am ñoo xam ne am nañ licence am na ñoo xam ne am nañ master 2 même suñu coordinatrice bi ñu fal sax am na master 2 léegi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi wax rek ne fonction publique bu fi njëkk am recrutement yi 56 personnes yu fi am benn handicapé gis si boppam te ñoo ngi ñaan mouvement national bu nekkee recrutement dana amaat handicapé yi gis seen bopp ci côté éducation tamit am na handicapé yoo xamante ni jànguñu te bëgg nañ timit ay classe inclusive classe inclusive classe inclusive bu ñu ko amee si département bi handicapé yu bëri yoo xamante ni mën nañ see jàng mën nañoo def baraay mën nanoo jàng ba ëllëg fu valide yu taxaw rek ñoom ñu taxaw fa si biir am na ñoo xamante ni tamit am nañ formation ñoo ngi ñaan tamit ñu wutal ñu wutal leen financement ñu am financement demal seen bopp su ko ñu former leen ñuy defar saabu ñuy defar eau de javel di di defar céréales di jaay seen bopp même ñu si amul formation tamit ñu wutal leen tamit ñu am formation même DER bi tamit handicapé yu bëree bëri bëri bindu nañ ci mais ba léegi amuñu si ñuy ñaan ñuy ñaan rek bu ëllëgee bu nuy jox rek lu ñuy jox tamit ñu jox ko handicapé si deer bi difficulté yi daal bëri na doléance yi bëri na monsieur Toumani Camara jël na doléance yi te suñu xel dal na si suñu yaakaar dal na si bis bu demee ba jox ko njiitu réew mi ku mu ko war a jot bu boobaa yaakaar naa suñ suñu situation dana changé bu baax a baax a baax si département bu Mbacké ñun suñu doléance gën a yu gën a yu gën a yu gën a bëri dafa bari lu si lu si mel ne bourse familiale yi am na handicapé yoo xamante ni am nañ bourse familiale xalangu nag dajut fépp am nañu si am bourse familiale am na ñoo xamante ni am nañ bourse familiale mais seen carte activé wuñ ko ñoo ngi ñaan tamit seen carte seen seen bourse seen lii bi seen carte yi ñu activé ko te am na tamit euh, social yoo xamante ni ñoo ngi doon ñoo ngi ko doon def si koor gi doléance daal bëri na te tamit buñ sañoon tamit pour Sénégal yëpp nu ñu seen bopp si état bi ñun handicapé Mbàkke ñu gis suñ suñu bopp ñu gis suñ bopp 100 pour cent bu mënta nekk 100 pour cent tamit 90 pour cent tamit ñu gis suñu bopp. lii ñu indi tey politique moo ñu fi dajale pour nommer coordinateur APR bu Mbacké ba ba loolu amee tamit monsieur Toumani Toumani Camara woo na woo na ñu war a woo yëpp ñu taxaw ci. tey ji si salle président yëpp ñëw nañ ñëw nañ fi kon bu président yëpp ñëwee rek président yëpp ànd nañ si si politique si politique bu bu ñu def fii ba jël Ndeye Amy Cissé def ñu ñu leen di wax rek. comme que am na ñu bëri ñoo xamante ni amuñu information man chaque jour lu may wax rek ñun président yi ñun ñoo war a sol suñ sol suñ dàll dem dem si ñoom parce que am ñoo xamante ni amuñu information xamuñu sax ndax association am na léegi bis bu ñu demee si ñoom wax leen association am na handicapé bi fii nga war a fii nga war a bokk kii fii nga war a bokk kii fii nga war a bokk nekku na par force nag yow nekk nga handicapé mbotoor rek si si association handicapé mbotoor nga nekk boo nekkee handicapé mbotoor mën ngaa bokk si handicapé visuel boo nekkee handicapé visuel mën ngaa bokk si handicapé mbotoor l'essentiel fi ngay bokk fu ne rek na nga fa yëg suñu bopp te tamit handicapé bu nekk si dëkk bi tamit na jéem a ñëw jege président yi président bu mu jege tamit dana waxtaan ak moom ubbil ko buntam bu ko arrangé mu adhéré si association ba ko arrangé wut mu dem xool beneen association mu adhéré fa. comme niñ ko defee ci yeneen département yi parce que def nañ Dakar Kër Massar def nañ mbuur euh, démb ñoo ngi woon Tiwaawoon tey ñu ñëw fii nii Mbacké te buñ fi jógee nii dañoo war a dem Bambey. léegi dañoo installé euh, comité yooyu noonu pour que le mouvement national des handicaps républicains du Sénégal chaque département du Sénégal mu am benn représentant kii euh, ne euh, chaque département de ce que moom mooy coordonner toutes les activités du mouvement comme comme Ndeye Oumé mii ni ñu installé nii nii récemment nii nii à Mbacké moom mooy coordonner les activités instant bi ni mission première instant bi ni mooy identifier les personnes handicapées qui sont euh, dans le département de Mbacké ñi nga xamante ne amaguñu carte d'identité wala ñi nga xam ne seen carte d'identité ci c'est inscrit ci gannaaw non inscrit mu fexe ba ñoom ñëpp ñu dem ñu yóbbu leen ci ci commission électorale yi ñu inscrire leen Euh, pour pour pour pen vingt 2024 handicapé yëpp am seen carte d'égalité inclure euh, euh, am seen carte d'identité pour ñu mën a inclure kooku 2024 incha allah ñu porté inclure ñu inclure ñu porté waat Macky Sall ci. à la tête du Sénégal loolu mooy mission principale du mouvement des handicapés déplacement yi muy def fii nii dans les départements du Sénégal te bu ñu jógee Bambey après dina am nañ beneen programme après dinañ dem côté Kédougou Kédougou Tamba et mu ngi ne euh, dans la région sud côté Casamance incha allah. dama koy rafet lu bu baax a baax te xam ne dañ maa sas sas nañ ma te mission bii ñu ma jox mission bi damay dama koy. damay rafetlu sas biñ ma sas liggéey bi di ci woo suñu mbokk handicapé yëpp pour ñu jàppale ma ci ñu doxal parce que du yee man kase la du du dem faut mbooloo mooy doole ñu àndandoo liggéey liggéey bi pare nañ incha allah pour investir terrain bi buñ jógee fii nii ci salle bi la ñuy commencé liggéey bi commencé recenser handicapé yi nga xamante ni nii amuñu carte d'identité wala ñi nga xam ne seen carte defal nañ leen ci noo ñu fexe ba ñoom ñëpp ñu mën a dem jour ba voté ji pour pour ñu jàppale Macky Sall maa ngi kii wax yi ñu jàppale ñu baax surtout ci niveau accueil bi des fois da dem si district sanitaire yi nañ lay accueillir day yokk sax sa feebar ñu jàppale ñu bu baax ci structure de santé yi ba nga xamante ni bu ñu demee dinañ ñu mën a gàttandu déglu ñu bu baax ba lépp lu ñu soxla woon ci kii poste de santé yi wala district de santé sanitaire yi ñu ñu saafal ñu ko te duñ ci am benn problème ndax affaire bi des na lu bëri ci handicapé yi boo demee discrimination beeg stigmatisation bi dafa xaw a kii